président de la République du président ci côté Roppé Colobane ak Sandaga résidence zéro différence for victoire du président de la République jaajëfal la République muy résidence du président de la République bi nga xam mooy demeure historique situé dans le quartier de la capitale de capitale du Sénégal construit en 1902 oui sama ne pal ba ko naa yàgg la ilaha illallah mu nekk la résidence officielle du gouverneur général de la France centrale le port Sénégal Senghor Dia 1964 Abdou Diouf 82 Abdoulaye 2012 Macky Sall 2012 mu ñam fi ñamaat fi ñaxaat ba am kii woo dama ko jot président de la République ko kala waroon na ko fan la woote salaamaaleykum allo waa soo da maama ah Macky Sall nee na day joxe enveloppe pour ñu ñàkk doom wooy ma da ngaa jaawale gaaw maa jël waay waay jël yàlla jël may standard man Papa Loum salaamaaleykum dama ni Papa Loum waaw waral sa woote ah? lan moo waral sa woote lan moo waral sama woote waaw ana président dafa dafa jàpp. jàpp. daa jàmp. jàmp li ma li ma ko woo daa jàmp. dafa jàpp jàpp occupé. il ah, occupé waaw daa jàpp. waaw. nee ko sàlli gaari buuru gëdëm maa koy gërëm. waaw. di ko sant ci kuufu foti. waaw. yi nga xam ne dañ daan toog guddi di xaar boolu dof wala liggéey yi ak ñi nga xam ne dégg maam dañ ci mbedd bi di wën ndëng ba fajar. loolu lépp tubaarkàlla Sall gaari bu nu gënee effacé na ko nee ko ñu ngi koy gërëm di ko sant nee ko couvre-feu bi allo. man maa ngi lay dégg bu baax. nee ko couvre-feu bi. waaw. na ko def deux heures ci ngoon ba six heures du matin. waaw bu ko defee nii ñi nekk seen kër seen njaboot yi mën leen a gis ñu mën a àndandoo doon benn. bu ko defee nga xam ni sàcc si daan jóg sax di sàcc dootul dootul mën si jóg sàcc ay sàcc gars yi moo mën a gouverner. <laughs> man man yow eh, kii Papa Loum. man loolu rek nga am looy wax yow. ay couvre fa ay deux heures foo ko gis. ah nga ni. fan nga mës a gisee loolu laa ci Sénégal gi. Ah, ah, sa ah, xalaat baaxul de. couvre fa. sa xalaat baaxul. ma di France nga ne def def def mi def midi midi ba six heures du matin ñoo gën France. astafurla ñoo gën France. astafurla. ma di na ko def deux heures ci ngoon ba six di du matin bu ko defee nit ñi toog ci kër yi sàcc si toog ci kër gi ñi daan taxawaale yi ànd xale yi jigéen yi ak mbor mboraan mi toog ñëpp kenn ku ne toog ci sa kër seetaan sa télé waaye na ci boole lenn na ci boole. maa ngi lay dégg. kër gu ne mu wàccee fa dundu dundu dundu ñaari waaw kër gu ne bu fa wàccee ñaari seeku ñaari saaku ceeb ñaar ñaari ñaari butéel diwlin yu mag yi mooy mooy vingt litres yi wàccee fa saabu wàccee fa suukar wàccee fa meew wàccee fa café wàccee fa ndox nit ki du muy soxla ci biti boo mee doo dem ci biir ke xam nga doo doon da boo xam ne dama koy baaxee njiitu réew mi. man Balum. te loolu yomb na ci day day day xool ke yi rek ke ya nekk Louga kër ya nekk Ndar kër ya kër gu ci ne nu wàññi ko euh, euh, mu wàccee fa benn kër par kër kër gu ne xam nga kër go goo wàccee benn tonu ceeb wàccee fa euh, fukki bi bitéelu litre yi diwlin. wàccee fa suukar ton. wàccee fa meew ton loolu kër googu kooku lu muy saxal ci biti ba di ko dox. man yow tàppalum. ko defee corona jeex. man ndax yaa ngi may dégg. man ndax yaa ngi may dégg. corona looloo ko fi mën a jëlee <laughs> de. mani. kër gu ne ñu tëj leen rap. mani dox leen dund yooyu kenn ku ne toog di dundal sa bopp. sa xalaat baaxul de. nga ji sama. sa xalaat baaxul. sama xalaat. baaxul baaxul. moo baax. moo lan. ah état <laughs> des nag tey boo waxal nga yàlla. mooy mooy ma. xalaat yii nag bëgg naa di ci waxtaan ak yow. dama ni dama ni. ndax dafa am solo te mënuma ko est-ce que paraate. dama ni. waaw waaw. yow sa raxas day fokki ndab te loo tëgg rax ca përëm. ah. buñ la dégloo du dox. gani. vo ma ni votre correspondant la peut-être. ah kon xamoon naa dëgg ci kontaan kay. coupé naa la coupé dafa wàccee dugg ñu xeex corona.